الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوسي تي في جسان فيدوبي أه... عرفات عرفات ak bis weer ak bisu tabaski ak ray xar ak jour boo war a julli dafa nekk masala boo xamante ne daanaka chaque année chaque année mu jur problème ak jiixi jaaxa ci xelu ñenn jullit ñenn ci jullit ñi bi ci njëkk mooy Euh, li li docteur Ibrahima Malick Thioune waxoon ci suñu jotaay bi weesu que ne culture islamique ñu bëree bëri suñu réew yi dañ ko manqué am na yenn débat yoo xamante ne daanaka ci réew yu mel nii rek nga koy fekk nit ñi di ci débatté di ci wuute ñaar ñett mais boo demee ci yenn réew yi nga xamante ne seen culture islamique bi xaw naa développé tuuti doo fa fekk ñaari nit di ci wuute première chose mooy yow nit ki li nga war a laaj te loolu wax dëgg yàlla bokk na ci li gën a tax. li gën a tax man may sonn pour taxawal plateforme bi pour dimbale au moins ñi nga xamante ne yàlla namm na pour ñu dimbalante suñu biir ndax léeg-léeg nit ki laaj la benn question boo xamante ne yow da yow après dangay balaame sa bopp yow mi xaw a xam tuuti da ngay balaamee sa bopp nan ngay balaamee sa bopp mooy nan nga def ba li nga xam mënoo ko transmettre ñii pour ñu génn ci niveau bi ñu toll xaw a am niveau bu ekkati ko tuuti maanaam dafay bizarre boo gisee en 2022 ku ne la jullit la am 50 ans wala 60 ans mom li questionner diko di ko laaj di ko ay moroomi jullitam moy ndax buñu taxawé Arafat le lendemain rek àdduna bi yëpp dañu wara tabaski oui ou non je pense que Sénégal fi Sénégal fi borom xam-xam yi fi nek dëkk bu bëri ay borom xam-xam la mais la masse la masse dañu manqué culture islamique bu bu am am am ki manam ci niveau bu extraordinaire la masse mais nag élite bi am nañu xam-xam gis nga Medina bàyyi Touba Tivaouane Ndiassane Layène canaba ak yeneen këru diine yi yeneen foyer religieux yi fi nekk am na ay boroom xam-xam yu fa nekk yoo xamante ne wallahi lazim su leen nit ñi xamoon ci niveau bi ñu leen war a xamee ak ci facette yi ñu leen war a xamee amul lenn lu leen di góndeeti ci biti mais malheureusement nit ñu ñàkkaleen na xam mooy waral nga jàpp ne tey jii ñu ngi def loo xamante ne ci seen bànneexu bakkan lañ ko teg ba benn waaye moom mooy ñëw tuddee boppam benn oustaz wala benn borom xam-xam taxaw ne dafay def waaraate commencé di jax-jaxal sa xel ba nga commencé di critiquer ñu di leen jam ci li ñuy def ñaari julli moo xam muy ci tabaski wala muy ci koor ji ñaari koor moo xam muy ci tabaski mu muy ci korité wala muy ci euh, tamxarit wala lu mu mënti doon amul amul lenn loo xamante ne kilifa yi nekk Sénégal ñu ngi koy def di ko wuuteeg yeneen réew yi te teg ko ci seen bànneexu bakkan je dis bien ci Sénégal fii am nañ fi ñoo xamante ne bind nañu bind nañu ay téere ci wàllu weer ak ci wàllu biddéew ak ci wàllu astronomie xam-xami weer naka nga koy kiyee naka lañ koy seerne te ñooñu ñooñu mësu ñoo toog ci baawu université occidentale yi jàng donc bu ñu minimiser li nga xamante ne moom la ñu yàlla may li may def nii nag introduction la pour ñëw ci li ma bëgg a wax bu ñu minimiser li nga xamante ne moom la yàlla may ci ay borom xam-xam boo gisee Touba Medina Baye Tiwaawan Njaasaan nangam ak nangam Makka ne ñoom dañuy julli samedi ñoom ñoom ñooñu ma lim sànq ñu ne ñoom dañuy julli dimanche kitaabul ne teguñ ko ci seen bànneexu bakkan kitaabul ne teguñ ko ci seen bànneexu bakkan parce que man li ma gëm mooy bu fekkee xam-xam kese la ñi nekk fii ci foyer religieux yi ma lim léegi ñoo ëpp xam-xam ñi nekk màkk ci jamono ji duñ sax benn dafa am loo xamante ne ci borom xam-xam yi dañ koy tuddee ixtilaaful mataalia ak ittifaaqul mataalia mooy dëppoo ci gisuñu weer masala la boo xamante ne yow miy dégg tey gis ñuy wuute nga commencé di fustiger loolu di ci frustré wu naan pourquoi c'est pas normal waa Màkka julli nañ ñun dañoo war a julli waa Canada julli nañ dañoo war a julli waa Nigéria julli nañ dañ c'est pas comme ça yow foofu la sa xam-xam toll moo tax nga jàpp ne loolu wuute la bu warta am mais ñoom ñi am wuute boobu noonu yàlla xam na ne dañoo jeexal téere yi jàngloo jàngul xam loo xamul moo leen permettre ñi mën a am wuute boobu noonu d'abord boroom xam-xam yi depuis ci jamono bu njëkk ba ba léegi dafa am ñaari masala yi ma wax nii ñoo xamante ne ñii dañoo jël position bi ñii jël ci position bi première position bi mooy première position bi mooy ndax su weer feeñee fenn ci àdduna bi fu mu mënti doon dafay engagé mbooleem julliti àdduna bi wii ou non deuxième position bi mooy weer bi fu mu mënti feeñ engagé wul ñu dul ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone boobu noonu ñun nag ñun fii ci Sénégal dañoo bokk ci ñi nga xamante ne dañoo gëm position wu ixtilaaful mataalia je l'explique mooy weer bi fu mu mënti feeñ ci àdduna bi engagé wul ñu dul ñi bokk ci zone boobu noonu engagé wul ñu dul ñi bokk ci zone boobu noonu te ci biir foofu sax am na ay sew-sew yu fa nekk tamit dinaa ci ñëw première bi mooy. tay jii weer mënta feeñ Malaisie nga xamante sa digënté ñom 8 heures de tour d'horloge mo ci dox nga nga mëna kitabu né ne weer boobu feeñ foofu daf lay engager yow ba wa Malaisie buñ oré nga or wala buñ oré nga or wala buñ tabaski nga tabaski ndax lolu scientifiquement sax boo tegee masalaay diiné fële ak texte diiné scientifiquement sax amul ben scientifique bo xamanteni dina wouté ci ñaar ak ñett ci ni jant bi ak planète yi ak weer yi di feeñee ak di soowee ak ni jant bi di doxee ak ni planète yi di ko wëree amul ñaari scientifique ñu ciy wuutee nga xamante ne àdduna bi fenn fu nekk am na jamono boo xamante ne ñii ñi ngi ci guddi ñii ñi ngi ci bëccëg loolu masalaay xam-xam la du doon masalaay fanatisme boo delloo ci jamono saxaaba yi boo delloo ci téere yi di nga gis saxaaba yi sax ci seen bopp ci seen jamono am na ñoo xamante ne position bi ma wax moom la ñu amoon mooy weer bi su feeñee dëkk bi te feeñul dëkk ba engagé wul ñu ñun il faut mu fenc ci suñu dëkk am ñoo xamante ne nag dañoo jàppoon rek comme ñi ñenn ñi jàpp léegi noo comme ay jullit lañ ñun ñëpp ñoo bokk pas-pas weer bi fu mu mënti feeñ daf ñuy engagé ñun ñëpp mais loolu xam nga lan mooy problème bi tey jii laa jël kiy wax loolu ndax waa màkk bu ñu jullee tisbaar yow da ngaa war a julli tisbaar ak foo mënti nekk ci àdduna bi parce que sous prétexte que màkk mooy sa xibla foofu la kaaba gi nekk tontu bi mu lay tontu ba di hiyan mooy déedéet parce que bokkuñu heure julli waa Màkka danañu julli gee fekk yow julleegoo tàkkusaan léeg-léeg heure bi mën naa changer sax ñu julli gee fekk yow yaa ngi doog a sëlmal tisbaar waa Màkka danañ julli fajar fekk yow julleegoo gee donc mënoo leen a wuute loolu yëpp nag ba pare nga bëgg wax ne ñoom buñ jëlee koor da war a jël koor buñ tegee koor da war a teg koor buñ tabaskee da war a tabaski ñaareel bi mooy loolu ci weeru koor la te yaakaar naa ñu bëree bëri sax léegi commencé nañoo xeewu ci loolu masala biñ ci sukkandikoo ñaare di ko jël nit ñi ci ay santiment mooy ñun ñëpp ay jullit lañ dañoo war a dañoo war a wóolu wante kon bu benn jullit nee la gis na weer bi da ko war a gëm amul amul benn borom xam-xam bu sérieux ci jamono ji buy gëm wax yooyu noonu parce que jamono ji ni mu yàqoo ak nit ñi ni ñu ñemee wax lu dul dëgg ak xibaar ni mu la mënee dikkal te du wér gis nañ fi sax d'ailleurs ay exemple ay ilimaan yu toog ne diw sàngam moo ñu woo ne ñu gis nañ weer wi ñu dem vérifier gis ne wax jooju noonu wérut kon bu ñu demee ba toll ci jamono foofu noonu dafa war a tax nit ki gën a wattandiku gën a taxaw seetlu ci xibaar yi nga xamante ne moo koy dikkal bañ koo basé rek ci ne ay samay moromi jullit ñoo ma jox xibaar bi ci topp mooy ci weeru tabaski ma ñëw ci directement parce que moom moo ñu gën a concerné tey <coughs> dafa am benn njuumte boo xamante ne. ñi am pas-pas bu généraliste bi bëgg a généraliser ñëpp ci benn tënkin moom lañu ñu am te loolu mooy njuumte li mooy dañu lëkkale tabaski dañu lëkkale tabaski waxuma ne amuñu lëkkoo nag mais ñoom dañ ko lëkkale que ne tabaski uniquement lendemain arafa la war a doon première question bi ñu waroon a laaj seen bopp wala bi ñu leen war a laaj mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xamante ne moo indi diine ji ñaata tabaski la julli ci dundam ñaata tabaski la julli xam nga bu fekkee taxaw arafa la moom yonent bi ci ajug lislaam benn arafa la taxaw benn benn arafa la yonent bi taxaw mooy xajjatul wadaay bi mu def léegi yonent bi ñaata tabaski la julli bu fekkee yonent bi mësta julli tabaski lu dul année bi mu taxawee arafa boobaa kon nga mën a wax ne taxaw tab julli tabaski dafa am lien direct ak lendemain arafa bu fekkee nag yonent bi mës naa julli tabaski lu bokkut ak taxaw arafa balaa ñuy daganal taxaw arafa kon nga xam ne mën nga leen a léegi naka nga leen di dissocier mooy tabaski attey boppam la ponk yu boppam la bu taxaw ci benn weer bu tudd zilxijja weer boobu noonu fu la mënti fekk ci àdduna bi bu amee dixième jour moom mooy jour moom mooy doon jouru tabaski nga ne aha léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo delloo ci xadis yi soxna Absa Anne maa ngi lay ziar maa ngi ziar mbokk yi mujj a dugg si yëpp sëñ Ibrahima Lo ma euh, Pape Ibrahima Lo maa ngi leen di ziar euh, boo delloo ci xadis yi xadisu imaam Ahmad xadisu Tirmizi ak xadisu yeneen boroom xam-xam di nga gis ne Seydina Abdullahi Ibn Omar ak yeneen ci saxaaba sax saxal nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na Medina diir ak lim fa nekk chaque année mu rey tabaski borom xam-xam yi ni ko firee mooy yonent bi. tabaski na neuf fois neuf fois benn yoon la tabaskiwul ci dix ans yi mu def Médine mooy année bi mu aj parce que année boobu noonu mënta tabaski ndax dafa aj kon bu ajee du rey tabaski dafay dafay dafay def xad yu xad yu la def année boobu mais reyut tabaski alors bu fekkee yonent bi tabaski na neuf fois ci biir ak li mu nekk Médine mooy année kon bi xare Badar am yonent bi tabaski na année bi xare Uhud am yonent bi tabaski na année bi ci topp yonent bi tabaski na année bi xare Xandaq am yonent bi tabaski na léegi tabaski yooyu mu doon def yëpp jaray ci lan la ko tënkoon ndax daf koo tënkoon ci lendemain taxawa arafa wala daf koo tënkoon ci weeru zulhijja sew sew la boo xamante ne boo ko lijjantiwul boo ko lijjantiwul doo mës a doo mës a résoudre équation wu waa Màkka taxaw nañu arafa tey man suba damaa war rey sama xar maa ngi ñaan ngir yàlla ji may déglu nañ ma bañ a déglu ak fanatisme wala ak sentiment ñu topp rek ci raisonnement bi nga xamante ne moom laay joxe te buñ paree ñu gëstul seen bopp itam. ma ne yonent bi tabaski na neuf fois rey na tabaski neuf fois saxaaba yi nettali nañ sax xaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu daan men li ci ëpp ci ay ci yoon dañ ne xar bu am béjjën la daan rey xar bu am xar bu weex la daan doon am ay ñuul ñuul ak nangam ak nangam donc bu ci dixième année bi ci lañ doog a daganal aj parce que aj màkk mooy ponk bi ñu mujjee daganal ci juróomi ponk lislaam yi kon ça veut dire que aj màkka ak rayu tabaski am na foo leen di dissocier am na nag fu ñuy lënkoowee lënkoo bu dëgër waaye am na foo leen di dissocier kon yow jullit bi nga xamante ne dangaa nekk ci beneen côté ci àdduna bi nga xam ne yow aji woo màkka maanaam attey alaaji bu aj yow waru la takkoos xarmal même bu fekkee ne da ngaa nekk ci tund màkk bi moo xam nga nekk Syrie wala nga nekk Yemen wala nga nekk euh, Abu Dhabi wala nangam amoo àttey kuy acc yow lan moo war a nekk sa taxawaay ci tabaski ndax yow sa tabaski da koy lëkkale ak ñiy taxaw arafa wala yow sa tabaski da nga war a lëkkale ak weeru zulxijja bi foofu nag la boroom xam-xam yi di waxee ne tabaski weeru zulxijja lañ koy lëkkalee. weeru zilxijja boobu fu mu mënti feeñ ci àdduna bi dangay dangay itibaar soit nga bokk ci ñuy jàpp ixtilaaful mataalia wala bokk ci ñuy jàpp ittifaaqul mataalia maanaam li ma mooy masala bi ma wax sànq ñi bokk nga bokk ci ñi wax ne fu weer feeñ ci àdduna bi dafay engagé jullit ñépp te bu boobaa weeru tabaski ak weeru korite ak weeru gàmmu ak weeru màggal ak weeru tamxarit yépp ciy bokk yem maanaam fu weer bi feeñ ci àdduna bi rek yow da ngaa war a commencer di compter kon mu ngi mel ni tey jii bu dee ci calendrier grégorien bi nga xamante ne moom la ñu kii euh, buñ ne premier décembre deux mille vingt deux jot na àdduna bi yépp premier décembre deux mille vingt deux day doon ci ñoom àdduna bi yépp parce que ñoom seen calcul bi dañ koo teg ci ay calculu calendrier. alors que ñun suñu calcul bi dañ koo teg ci calcul xamariya mooy weer bi dafay feeñ nga gis ko muy màgg nga koy compter mu jeex ñu ne dee na beneen weer feeñaat donc bokkuñu ñun li ñuy calculer ak ñoom moo tax ñoom 31 décembre ak 1er janvier mën a nekk ci àdduna bi yépp 1er janvier waaye yow julit bi ci selon ni sa weer di feeñee tey ji weeru safar muy weer bi ñuy def màggal Tuubaa wala weeru tamxarit mën naa feeñ fii ci Sénégal waa Sénégal ne gis nañu weer bi weer bi juddu na waa Nigéria ne ñoom weer bi juddoogul ci ñoom parce que gisaguñu ko waa Màkka ñoom weer bi juddoogul ci ñoom waa Malaisie ne ñoom weer bi judd na ci ñoom kenn ku nekk selon gis-gisam walla ñàkk gisam ak ki nga xamante ne moom dafa bokk ci ñi itibaar ixtilaaful mataale wala ci ittifaaqul mataale léegi nag bu fekkee loolu la. yow senegal dangaa bokk ci ñuy itibaar ixtilaaful mataalia mooy wuute gisin selon tund bi nga xamante ne fa nga bokk ngeen bokk ni seen jant di fenke bokk ni seen jant di soowee bokk seeni waxtu julli dison senegal Mali Gambie euh, Mauritanie ak yu mel noonu kon foofu bu weer bi feeñee màkk ñoom ci seen calcul ñu ne weeru zulhijja taxaw na weeru aj màkk taxaw na yow weer bi feeñagul ci yow kon yow war a goo commencé compter sa fukki fan jour xijja léegi ñoom jour bi ñuy am neuvième jour jour boobu la ñu war a taxaw arafa parce que seen calcul ak seen compter loolu la tombet mais yow ñoom jour bi ñuy taxaw arafa yow huitième jour lay doon ci yow kon boo reyee sa xaru tabaski ñoom seen lendemain yow da ngaa rey sa xaru tabaski ci neuvième jour reyoo ko ci deuxième ci dixième jour. léegi nag nga war a xool yonentu bi sallallahu alayhi wa moom xaru tabaski yi mu daan def daf ko doon rey ci huitième jour wala daf ko doon rey ci dixième jour bu fekkee yonentu bi dixième jour la daan dàkk di ci rey xar wi kon même bu fekkee waa Màkka tabaski nañ samedi yow da ngaa war a tabaski dimanche parce que yow dixième jour nga war a dàkk waaye waroo dàkk lendemain bi waa Màkka taxawaa fa je ndax li may wax leer j'espère j'espère que dina leer ci xelu ci xelu ñi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi déglu ak xel mooy ni daal ñun suñu compte ñun suñu compte ci weer wi la aju ajuwul ci taxawaayu waa màkk ak seen ñàkk ñoom tamit seen compte sax ñoom ci weer wi la aju waaye mën nañu wax ne ñun ci suñu position ñoom dañoo juum seen compte yi ñoom tamit mën nañoo wax ne ñoom ci seen compte ñun dañoo juum ci suñu compte yi nag kan moo ci am dëgg. science moo koy prouver ak xam-xamu weer ak astronomie ak yu mel noonu man li ma gëm mooy jour weeru koor bi maanaam ci premier jour weeru koor bi foofu lañ faussé seen calcul ñoom maanaam jour bi ñu ooroon du wutoon jour boo xamante ne weer mënoon na cee feeñ léegi nag mbiram calcul weer dafa nekk lu lu lu complexe loo xamante ne boo juumee ci premier janvier bi par exemple calendrier bi yëpp dafay juumu après calendrier bi da fay jub donc ñom bañu ñu ci sen premier jour Ramadan ca lañu faussé sen dernier jour Ramadan ca lañu faussé item sen premier jour sen premier jour Zulhijja parce que bu boba jour bi waroon a nekk 29 neuf vingt ci ñom ñom daf kay compter 30 Zulqeeda wala 31 et te boobaa dañ naan c'est impossible donc dañuy obligé au lieu ñu matal Zulqeeda bi ñu jappé ko premier Zulhijja te boo demee ci borom xam culture islamique bu plus que Sénégal maa ngi gis mbokk mi euh, kan mu ngi bind Mauritanie Indonésie mais du ñooñu sax kese yeneen dëkk yu bëree bëri nga am culture islamique bi dépassé nañ que ne waa taxaw nañ ñun Arabie Saoudite Arabie Saoudite depuis 2017 ba man ci li ma 2017 ba léegi faussé calcul calendrier musulman complètement et loolu loolu ñoom ñooy responsable donc bu ñu nit ñi arafa jour jour ci ci ci responsable du gouvernement Arabie Saoudite ak seeni borom xam-xam léegi nag jullit ñi nga parce que ñoom dañ leen maanaam liñ leen teg amuñu ci droit ci bañ ko wala ci nangu ko dañ leen ko imposé waaye depuis 2017 ba léegi Arabie Saoudite dañoo faussé calcul calendrier musulman bi léegi nag de deux choses l'une pour ñu mën a retourner ci li nga xamante ne ci lañ nekkoon mooy ñu nangu bés ñëw moo xam ga ga korite gi di euh, di ñëw lay doon moo xam koor gi di ñëw lay doon moo xam ci tamxarit bi di ñëw lay doon nga xam ne d'ici un mois la nañu nangu.

1er mai parce que eu le 1er janvier nous 31 décembre parce que eu le 1er janvier donc ils ont commis une erreur et malheureusement ils s'entêtent à ne pas reconnaître cette erreur là ci calcul nous fait et contrairement à que à ce que nous bari Afrique Sénégal la des nous avons fait des Égypte fait Bangladesh ak ba ci euh, yenn réew yoo xamante ne ni amuñu benn rapport ak Afrique da gis ne dañuy wuuteeg arabi Saoudite ci seen calcul boobu noonu mooy wane ne kon c'est un problème mondial te ñi ko sooke mooy gouvernement Arabie Saoudite ak seeni borom xam-xam bi ñu juumee ci 2017 ci seen calcul bi àdduna bi yëpp waxoon leen ne juum ngeen weer bi feeñul ñu bañ ne ñoom weer bi feeñ na taxawu dëgg ci bopp année boobu noonu ñu taxawloo jullit ñi Arafa. 8 e jour au lieu de 9e jour lan demé warona e jour 9 ñu xey tabaski ci jour le problème bi commencé le problème bi où commencé alors euh, wéru wéru tabaski dal amul ben rapport ak arafa tabaski rapport bi mu am premier rapport am moy rapport ak le 10 e jour zulhijja yow ak Arabie Saoudite bokk ngeen calcul wala bokku leen calcul yow sa dixième jour moo war a nekk jour bi ngay rey sa sa xaru tabaski parce que yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dix ans yi mu def Médine yëpp neuf yi nga xamante ne ni rey na ko ci xaru tabaski dellu leen ci téere xadis yi du ma toog du euh, euh, jarul may toog fi di leen limal ay xadis mën nañ cee fanaan bu ko naroon def euh, dix yi yonent bi def Médine yëpp neuf tabaski yi mu fa def neuf tabaski yi fa def yëpp daf koo def selon dixième jour zulhijja mais defu ko selon lendemain arafa loolu nag bu ñu ko comprendre rek problème bi jeex Seydi Ali Cissé Mouhamed Cissé maa ngi lay ziar bu baax wallahi lazim wax nga dëgg arafa c' une chose ray tabaski c' est une autre chose yoo xam ne bokkuñu dara amuñu benn rapport képp koo xamante ne nag fanatisme wala ñàkk xam wala entêtement jàpp na la ba nga jàpp ne waa Màkka taxaw nañu arafa tey kon yow suba da war a rey sa xar xamal ne am nga ndawal waaye amoo tabaski parce que yow sa xar da nga rey ci sa neuvième jour li waroon a nekk sa neuvième jour fa nga rey sa xar te normalement xar bi da ko waroon na rey ci sa dixième jour. léegi nag mu des beneen affaire mooy xam vocation wu tabaski ak jubluwaay bi nga xamante ne moom la ci yàlla jublu ci jullit bi. alxuraan wax na ne lan yanaala allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum ñu baree bari suñuy jàngale tabaski dañ koy jëlee rek ci ne. ponk la boo xamante ne mu ngi jugee ci yonentu yàlla Ismaayil bi mu waree rey doomam sa yonentu yàlla Ibrahim bi mu waree rey yonentu yàlla Ismaayil nangam ak nangam ba c'est bien beau yonentu yàlla Ibrahim yonentu yàlla Ismaayil mais est-ce que est-ce que yonentu yàlla Ibrahim ak yonentu yàlla Ismaayil lendemain taxaw arafa la waroon na rey yonentu yàlla Ismaayil wala ci dixième jour zulhijja la waroon na rey yonentu yàlla Ismaayil parce que jamono yonentu yàlla Ibrahim ay taxaw arafa yooyu amul woon. donc dañoo légiférer tabaski daganal ko ci calendrier bu antérieur ak taxaw arafa kon taxaw arafa moom moo fekk si taxaw arafa moom moo fekk si tabaski waaye du ne tabaski moo fekk si taxaw arafa donc boo comprendre sew sew bii rek xam ne tabaski dat la woon bu fix lu jiitu arafa di am ak musdalifa ak mina ak euh, safa marwa ak tawaaful quduum ak tawaaful ifaada lu jiitu loolu yëpp di am ci la tabaski am ci lañ ko date donc li ñu anti date nag ci tabaski taxaw arafa moo ko ñëw fekk si kon du ne arafa boobu ngay jël di ko lakkale ak tabaski bi waaye tabaski bi dafay taxaw taxawaayu boppam arafa bi taxaw taxawaayu boppam léegi nag yow mi nekk feneen ci àdduna bi te bokkoo ci ñi taxaw arafa yow sa dixième jour ngay kii loolu benn la mën nañu jàll ci ci troisième point bi mooy woor woor bi si àjjuma comme ni arafa bi tombee tey bi si àjjuma ak woor bi su samedi am na ñu bari ñu ma ci interpellé ci yenn xadis yi ñu leen wax ne yonent bi dafa aaye oor bi su àjjuma dama jàpp ne nag loolu bokk na ci li ma wax sànq mooy manque culture islamique bu baax euh, malheureusement il faut ñu dolli góorgóorlu gis nga duwul ne fépp fu ngeen gis ñi ne yonent bi tere na nàngam rek tere boobu dafay tegtale araamal loolu ngeen jéggal ma mais ku koy wax ku ñàkk xam la duul ne fépp fu ngeen gis ñu ne yonent bi digle na nàngam rek digle boobu dafay dafay tegtale farataal wala waral bokkul boo delloo ci téere xam-xam yi gën a gàtt ci ñuy jàng fii ci senegal yaakaar naa ginnaaw lax dari sax lañ koy jàng mooy Ibnu Ashir da ngay dégg mu naan la su ma fàttewul aqsaamu xukmi shari xamsatun turaamu fardun wa nadbun wa karahatun xaraamu fa mamurun jusim fardun wa duna jazmin mandubun wasim zu nahyin makruhun wa maa xatmin xaraamu maa zul wajhayni mubaaxun za tamaamu bu fekkee fàtteew ma gëj naa ci depuis 2000 2005 xaw ma 2004 mais bu fekkee fàtteew ma lii la bayti bi di wax mu ne atte yi ci sharia juróomi atte lañu mooy atte principe yi maanaam ñeenti juróomi ponk yooyu la bi mooy imma mu nekk farata imma mu nekk xaraam imma mu nekk mandu imma mu nekk makruh imma mu nekk mubaax juróom yi ñoo am léegi beneen bu ci ñëwaat ginnaaw gi dérivé lay doon mais juróom yi ñoom ñooy principal yi farata mooy lan mooy lu ñu waral nga xam ne soo ko defut am nga bàkkaar soo ko defee am nga yool loolu mooy luñ ñu par exemple julli juróom farata la yow jullit bi julli war soo bàyyee sa julli juróom te tay ko am nga bàkkaar mais soo ko defee comme ni ko yàlla diglee tamit am nga yool ban mooy opposé farata mooy lu xaraam par exemple naan sàngara dañ koo araamal yow jullit bi nga xamante ne mukallaf nga soo bàyyee naan sàngara ngir topp yàlla am nga yool waaye soo ko defee am nga bàkkaar kon lan mooy définition lu xaraam mooy opposé wu définition wu farata définition wu farata mooy loo xam ne soo ko defee am yool soo ko bàyyee am bàkkaar opposé bi mooy lan loo xam ne soo ko bàyyee am yool soo ko defee am bàkkaar jàpp ngeen ñaar yooyu damaa damaa wàccee niveau bi nag moo tax may waxee ni ngir yàlla di benn benn ngeen comprendre ma rek parce que xam naa ne am na ñu may déglu boo leen laajoon lan mooy farata mënuñ la koo définir moo tax suñu oustaz yi jàngale ci télé ak ci rajo il faut ñu dimbale ñu yërëm ñi nga xamante ne ñoo leen di déglu bàyyi di leen wax ay waxi dof te jéem leen a jàngal lu leen di jëriñ donc j'ai donné ces deux définitions là premier bi mooy farata mooy loo xam ne soo ko defee am yool soo ko bàyyee am bàkkaar li koy opposé mooy haram mooy loo xam ne soo ko bàyyee am yool soo ko defee am bàkkaar on est d'accord ñetteel bi mooy ban. Moy makruh wala man moy wa moy makruh nañ jël ben rek makruh makruh moy lo xamantene dañ ko sip luñu sip moy lan moy lo xamantene soko baye am yol mais soko defé do am bakar manam duut ne soko defé rek ñu bind la bakar parce que yegul ci darajaay haram mais nak soko baye tamit di nga am yol ci baye gi ko baye bi ci topp mooy man manduub mooy loo xamante ne dañ koo sopp farataaluñ ko luñ ko mais dañ koo sopp rek loolu lan mooy définition bi mooy loo xamante ne soo ko defee soo ko defee di nga am yool mais soo ko bàyyee doo am bàkkaar donc da ngay gis ne définition wu manduub moom mooy opposé définition wu mag makruh comme ni nga xamee ne définition wu farata mooy opposé définition wu xaraam mu ngi leer bi ci topp te juróomeel leen mooy mu baax mooy loo xamante ne moom nekkul ci benn ci ñeent yi ma wax moom nga def ko ak nga ñàkk koo def yépp a ci yem def ko bàyyi ko ñoo yem amul bàkkaar amul yool amul digle amul tere donc moom mooy électron libre bi nga xamante ne moo nekk seen digg mooy polyvalent bi def ko bàyyi ko ñoo yem mu ngi mel ni exemple chaque jour chaque jour ma wax ko fi gars yi di jàpp Eh, ñi wax takk ñaari jaaru sa ñaari jaaru yi nga takk yàlla xam na ne bari na ku lay wax ñaari jaaru boo ko laajoon takk ñaari jaaru ban atte la am ci atte sharia xamu ko xamu ndax farata la wala aram la wala mandub la wala makruh la wala mubah la donc ci gàttal juróomi atte yooyu ñoo am ñooy atte principal yi léegi buñ la ne am na xadis bu ñëw yonent bi tere na or àjjuma xadisu muslim wala xadisu bukhari wala xadisu nangam buñ ne la yonent bi tere na or àjjuma li nga war a njëkk a xool yow bu dee am nga xel mooy tere bi ban façon tere la ndax tereeg araamal la wala tereeg sib la bu fekkee tereeg sib la mooy luy wàccee àtte bi ci makruh bu fekkee tereeg araamal la mooy lu ko yóbbu ci àtteeg xaraam léegi li nga xamante ne boroom xam-xam yi danañ ci dëppoo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa buy wax loo xamante ne daf koo araamal dafa am méthode bu mu koy waxee dafa am façon bu mu koy waxee ak forme bu mu koy formuler loolu nag il faut nga jàngee ci ay borom xam-xam loolu moo la koy xamal mais duwul nga dem télécharger téere bi ci Google wala nga dem def ay recherche ci YouTube wallahi lazim looloo tax jàngal sa bopp dangereux dem rek di lire naan damay def ay recherche looloo tax mu dangereux faaw nga am borom xam-xam buy téye ci sa loxo. ne la lii nii nga koy déggee lii lii lay firi lii lii lay firi léegi nag boo demee ba boroom xam-xam boobu yeewi la goreel la boobaa mën ngaa demal sa bopp mais nii rek yow nga dem jàngi nasaraan wala nga dem jàngi kii ñëw ba màgg commencé mën a liir ijji xaaral ma dem def ay recherche di dugg ci Google di télécharger ay téere di liir da ngay réer da ngay parce que da nga gis ñu ne la yonent bi tere na nangam te doo xam ci ban wàccuwaay nga koy wàccee ci juróomi wàccuwaay yële ma wax ndax lu araam lay doon wala ndax luñ sib lay doon wala ndax luñ booyal noonu bàyyi ko lay doon nga def ko nga ñàkk ko def ñooyam yem di nga gis ñu ne la yonent bi digle na nangam rek nga jàpp ne farata la exemple fii suñu doomi bàjjen yi di juumee toujours gis ne yonent bi tere na sol tubéy bu gudd wala euh, sol yëre bu gudd rek ñu jàpp ne cëkkal tubéy moom farata la war a doon ñoom ñëpp jël seen tubéy yi dem yóbbu ko ci tailleur bi mu dagg ko wala ñu dem sol ñu dem ñu dem ci seen armoire rakk yi sol seen tubéy rakk yi.

pour ñi nga xamante ne sama wax ji raw na leen mën nañoo lire commentaire mi yi Ali yaakaar naa li ma wax noonu la j' espère que je suis pas en train de raconter du n'importe quoi yéen yéenay suñuy sëriñ donc je parle sous votre contrôle en tout cas saa bu may wax dinaay bàyyi xel yii xam naa ñi may déglu ak ñi ma nar a déglu ci donc yabu ma leen yab bu toll ni toog di raconter du n'importe quoi parce que xam naa ne du ne ay jaahil ñoo may déglu xam naa ne ñi ma nar a déglu ji ñu ci baree bari ci ñoom ñoo ma raw donc je vous respecte autant dinaa wax loo xamante ne ku ko gëstu dina fekk na ma ko waxee noonu la demee ci kem sama kàttan nag duuma duuma maasum duuma yonent bu yàlla yónni donc je reviens bu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bu leen or àjjuma wala ñu ne yonent bi tere na or àjjuma tere boobu noonu àtte bi ko boroom xam-xam yi jox mooy lu ñu sib la waaye yeggul ci darajaay xaram maanaam teg telewul ne soo wooree àjjuma da ngay am bàkkaar tegtalewul ne soo ooree àjjuma yàlla da lay dugal safara tegtalewul ne soo ooree àjjuma li nga mosoon def ci lu baax yëpp yàlla da koy effacé yow jàpp la yóbbu safara tegtalewul loolu de lu tax mooy dangay xool forme bi ko yonent bi teree te loolu laa wax sànq que ne borom xam-xam yi wax nañ ne yonent bi buy wax loo xam ne terek araamal la dafa am façon bu mu koy waxee ak forme bu mu koy formuler buy wax loo xamante ne nii lu ñuy cible dafa am forme bu mu koy formuler boo delloo ci ibnu ashir bi ma wax sànq da nga gis bi mu koy définir sax dafa wax ne fa ma mamurun juzim fardun wa duuna jazmin mandubun wusin zu nahyin makruhun wa ma hatmin haramu ma azul wajhayni mubahun za tamamu mu ne loo xamante ne dañ koo digle ba pare insister ci maanaam ñu digle ko ba pare ànd ak insistance dafay wane ne loolu farata la mu ne loo xamante ne dañ koo tere ba pare insister ci tere gi insister bi nag bëri na ay façon soit yonent bi wax ne inna allaha harama kaza maanaam yàlla araamal na nàngam wala mu ne la yàlla ak yonentam araamal nañ nàngam wala mu ne la yonent bi araamal na nàngam boobaa ñu xam ne insister na ji boobaa dañ koy classé ci catégorie araam yi wala yonent bi ne ku def nangam yàlla dana la mbugalee nangam ku def nangam yàlla dana la def nangam boobaa insisté na ci ñoo xam ne ko dañ koy placé ci catégorie sàngam mais bu fekkee daf ne rek bul def nangam léegi dañuy xool bul def boobu ci ban contexte la ko waxee ak ci ban jubluwaay la exemple ci suñu contexte bi ñuy waxee or aljuma la yonentu tere lu tax mu tere ko. dafa am illa bu tax mooy daf ne la ludul ludul aha bam ne la ludul rek mooy ne kon am na lu ciy génn kon wàllu xaraam moom dàqu na lu nga war koo boole ak jeudi wala nga war koo boole ak samedi kon ndeke or ajjuma bi xaddi zaati yi ndax bu or ajjuma bi xaddi zaati yi xaraamoon konoon nga boole koog samedi dafay xaraam nga boole koog jeudi dafay xaraam nga boole koog dimanche dafay xaraam mais bam ne la lu dul nga boole kook jeudi wala nga naru koo booleeg samedi rek mooy ne kon dagan na kon ndeke tere bi tere sib la ak wattandikuloo léegi lan mooy xaral bi maanaam lan mooy jubluwaay bi tax ñi sib ko mooy bañ nañ nit ki d'abord mu jàpp ne or ajjuma farata la parce que ajjuma jour bu màgg la donc dañ ko war a màggal te loolu boo ci duggee moo lay yóbbu ci dugal ci diine lu ci bokkul wala wala aljuma bisu fet la aslan aljuma ci bopam bisu fet la da ngay deg bayina sa radiyallahu anhu ci ben kasetam muy wax ne julli ñi yalla daf may ay fet ci lepp lu ñuy def biñu julle lim leen digal ci ci semaine bi yeb mu may leen ben fet muy aljuma biñu lekke lu lu dagan lim leen digal ak lu def lu bax lim leen digal ci at bi yeb mu may leen ben fet ginnaaw wéru koor moy euh, korité ainsi de suite ainsi de suite donc aljuma ci boppam bisu feet la ta or bisu feet or bisu feet soppuñu ko bisu feet dañoo soxla nga lek nga naan nga kaf nga re nga refetu nga sangu nga set nga sol lu donc motax aljuma bisu feet la kon nek gim nek bisu feet dañ ci sip nga ci sonnal sa bop di def xamantene ni da fay dafay ak bëgg ak feet ak lek ak nos ak hayat comme niñ ko waxee donc lool moy ñaarelu maqsad bi tax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam tere ko waye bu ñaari maqsad yoyu manam ñaari ponk yoyu bu dako d'abord yow oro aljuma parce que da nga japp ne orang dafa war ñu koy oor ngir magayam bi mu mag waye oro aljuma parce que da nga baña fetu comme ni la ko yalla digalee déedéet da nga or aljuma parce que dafa fekkon ngay wor sa koor bop mo xam nga don fay koor bo manqué won wala comme suñ mbokki jigéen ñi nga am ay ndok ndok ci wéru koor ngay fay sa wéru koor mu tombeek aljuma wala da nga am sa naafile boo nekkoon rek di jaamu yàlla mu tombeeg bisu àjjuma wala sax dangay ngay or lu ñuy tuddee siyaamu daawut mooy nga or tey dog suba or tey dog suba mu tombeeg bisu àjjuma wala mu tolloo ak bisu arafa comme nii nga war koo or donc loolu loolu yépp bu ci taxawee ay waxu dàq nañ walla aaye nañu wala araamal nañ or àjjuma dafay dàqu boobaa da ngay or ci bisi àjjuma bi dara du la ci fekk jour yàlla aramal ci ñu woor ko jour yi yàlla aramal wala yonent bi aramal ko am na ay borom xam-xam yu ko lim ci seen téere yi xaaral lim ci vite fait rek quelque yoo xamante ne ni jege na ma fii premier jour bi ci jour yi nga xamante ne ni aramal nañ ko mooy jour ñaari iid yi mooy iidu tabaski wala tam tamxarit iidu ta iidu iidu korite kon riwaaye boobu di nga ko fekk ci Muwatta Malik ci volume 1 ci page 178 di nga ko fekk itam ci saxiixul Buxaari ci baabu ci baabu sawmil fitri ci xadis numéro 1990 ak ci yeneen téere euh, yonent bi sallallahu alayhi mu ne yawma fitrikum min siyaamikum wal aaxaru yawma taakuluuna fiihi nusukakum ñaareelu jour bi mooy ayaamu tashriq mooy ayaamu mina yi nga xamante ne ci ku aj ku nekk ci aj ñetteelu bis bi mooy siyaamul wisaal ooru jokkalal amul jokkale te loolu sax aaya bi ci ñëw aaya sible sib ñeenteel bi mooy siyaamu yow mu chekki par exemple jour bi ñuy dute ci ndax weer bi feeñ na wala feeñul ci weeru koor ñeenteel bi mooy woor ñaari fan avant ramadan euh, juróomeel bi mooy or bisu arafa ci ku nekk aji aj taxaw ci arafa ga te loolu sax am na sew sew bu ci ñëw ndax naa Aïcha moom riwaaye nañ ci moom que ne nekk na ci aj nekk bisu arafa ba pare ñu gis ko muy woor Euh, bi ci topp mooy ifraadu yowmil jumaati bi siyaam jagleel àjjuma koor mooy li ma doon wax léegi lu dul mu nekk ne da nga koy boole ak samedi wala danga koy boole ak jeudi wala da fekkoon ngay woor sa koor mu tombee ci àjjuma wala mu tolloo ak bisu arafa nga woor ko te dara nekku ci ñetteel bi mooy jagleel bisu samedi moom kenn or comme ni mu nekkee ci riwaaya Abu Dawud ci xadis numéro 2421 wala ci riwaaya Tirmizi ci xadis numéro 744 lu dul mu nekk ne da ko koo nar a boole ak dimanche wala da nga kaa boole woon ak àjjuma gële jiitu woon bi ci topp mooy woor ci ku nekk ci tukki wooru aju tukki bi ci topp mooy woor goo xamante ne nii nit ki mën na cee lor ci wér-gu-yaramam bu fekkee ku feebar la bi ci topp mooy wooru naafila ci jigéen joo xamante ne dafa nekk ci say jëkkëram nekk fi sans ndigalu jëkkëram Euh, bi ci topp mooy woor bisu naafila boo xamante ne dafay ànd ak pas-pasu ne bis boobu bis bu ñu war a woor la bi ci topp mooy woor bis boo xamante ne ni jaahiliya dañ ko doon màggal ci koor nga di leen ci nga koy woor yow tamit ci roy leen ci waaye bu fekkee dañ koy màggalee ci leneen yow laa baas boo ko wooree bi ci topp mooy or yow mun nayrus li ma wax nii yëpp nag ay dalil ñëw na ci ci ay téere ci ay hadis ci ay waxu borom xam-xam nangam mais dama indi nii rek ci bëmbëstal mën nañ koo nañ koo. Euh, teqantal mën nañ koo gën a yaatal euh, prochainement wala beneen yoon incha allahu taala li ma bëgg a wax daal ci gàttal mooy amul fenn foo xamante ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na fa tere boobu di digle di tegtale araamal mutlaqan amul fenn itam foo xamante ne yonent bi digle na fa digle boobu dafay tegtale systématiquement daganal wala waral déedéet il faut nga dellu ci boroom xam-xam yi ñuy wax ne lan lañ ci jublu ndax tere bii nii araamal lay tegtale wala sib lay tegtale wala wattandikuloo lay tegtale chaque jour ma wax ko aawuzu billahi min kalimati ana bëri na ay mbir yoo xamante ne yonent bi tere na ko te tey jii ñun ñëpp ñu ngi koy def wala ñu ci bëri ci ñun exemple fanaan ci kër yow kenn am na xadis bu ñëw ci tere ko ñun ñëpp ñu ngi koy def exemple tukki jógee tukki dem sa kër guddi ñun ñëpp ñu ngi koy def te yonent bi tere na ko ak yeneen yu dul yooyu loo xamante ne exemple lekk ndawal sax di ko lekkee sa loxo. xadiisu Buxaari la tere ñëw na ci di ko lekkee ki kon di ko lekkee kuddu wala di ko lekkee fourchette wala di ko lekkee leneen tere ñëw na ci te pourtant tey jii ñun ñëpp ñu ngi lekk ay fourchette ñu ngi lekkee ay kii yu kenn xamul donc ci gàttal ñu bàyyi tengal bi ci diine ji ak bàyyi di jël mbir yi ci internet rek

bu fekkee question am na mën nañu mën nañu jël quelques questions moo xam voilà Seydi Ali wax na ko ad diinu inna haza diina yusrun hadisu Buxaari la yaakaar naa hadis numéro 31 su ma juumul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna haza diina yusrun walan yushadda diina ahadun illa galabahu diina ji diina ju yomb la amul kenn ku koy diisal lu dul yàlla dina ko diisal ci sa kaw maanaam boo yenoo diine ji diisal ko foog ne diine ji benn épée de Damoclès la bu nek ci sa kaw rek yalla wàccee la lu koy diisal ci yow chaque jour ngay nek ci problème chaque jour ngay nek ci xol bu xat il faut prendre les choses à la légère loolu nak lan mo la koy may moy nga jang am ay argument mais bo jangul amo ay argument lu lay perturber dafa yomb lu lay jaaxal dafa yomb lu lay nax dafa yomb donc ñi nga xamante ne suba lañ nar a tabaski parce que xeyna ñom ñoom gisoon nañ weer wala jàppoon nañ ne weer bi feñna yalla na leen yalla nangul ñun ñi nga xamante ne dimanche la ñuy tabaski yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy nangul en tout cas ñun woor nañu tey ngir taxawaay ba suñ mbokk ya taxaw ca Arafa waaye tamit danañu woor suba ngir ne moom mooy suñu neuvième jour donc moom mooy suñu bisu Arafa ñun euh, danañu julli tamit dimanche te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñu jàngal mooy tabaski ñetti fan la donc yaatu na nga rendi tey nga rendi suba nga rendi gannaaw suba tank yang ci 3 jours tabaski rek la bas ben ñaan yalla dal mu nangul ñu ñun ñep parce que yalla su ko nexé ñun ñep mu nangul ñu du ko wañi dara bu ñu nangulé ñun ñep itam amul ci kenn ko xamantene yoolam dina ko manam yow yalla nangul la du tax man sama wañé ko mu nangul ma man du tax yow sa wañé ko donc mën nañu nangul ñun ñep te kenn du yakal kenn moy li ben way di wax rek xawma olof ñokoy wax sax xol asaman jarul buxante xool jant bi jarul buuxante donc mayu yàlla yi ak nangul yàlla ak yool gi la yàlla di may jarul buuxante ku nekk xaj na ci ku nekk xaj na ci jarul yow nga jàpp ne yaa gën kenn parce que da def lu dëppoo benn réew moom mu def lu uuteeg réew moomu noonu xëy na réew moomu noonu ñoom ñoo nekk ci njuumte parce que réew moomu noonu ay politiciens ñoo koy jiite ak ay boroom xam-xam yoo xamante ne ils sont à la solde du politique lu mu leen digal la def donc def nañu seen erreur euh, yàlla leen ko yàlla jéggal mais ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñu rectifier erreur boobu balaa muy trop tard. ñu ngi ñaan yàlla mu rectifier erreur bu balaa muy trop tard maa ngi gis benn mbokk bu tudd Adama Thiam nee na mu ngi may bind rek du may jot xaw ma sëñ Adama baal moom nga yónnee ma message euh, messenger maa ngi jéggalu ci ñàkk jot gu bari gi itam <coughs> comme ni ma ko waxee sànq rek téléphone bi moom da ci du mën a nekk H24 te léegi-léegi itam soxla yi dafay bëri donc bu fekkee question am na mën nañu jël ñaar ba ñetti question incha allah après ñu daaneel comme ça ñu def une heure dix minutes incha allah taala ngi jéggalu bu baax ci yu bëri yi tamit bismillah bu fekkee bu fekkee question am na incha allah maa ngi ziar mbokk yi mujj a dugg si yëpp tamit. نعيمي يا ذكر المصطفى نور من خص بأسرار أسماء ñii laajte plateforme bi nan la ñu def pour am ci accès lien baa ngi noonu ma ma kii ma épingle ci premier commentaire bi mën ngeen ci cliquer waaye engagé wul ñi nga xamante ne jotoon nañoo inscrire comme ni ma ko waxee woon sànq ñi jotute inscrire wu mosuñ ci inscrire ñoom la engagé donc dugg leen ci ngeen remplir formulaire bi te ngir yàlla ngir yàlla ku remplir fayal automatiquement parce que fexe nañ ba lien bi synchronisé waat nañ ko simplifier ko defal nañ leen ci méthode de paiement yi fayal directement après ñu jël la test de niveau après ñu classé la incha allahu taala. محمد عبد الله ناصر دينه وأنصاره ملا يعد ولا يحصى فملك طوى أيامه متقللا وللنفس Aliou Gueye lan lañ jublu ci or bisu arafa ndax moom mooy or jour bi nit ñi di taxaw arafa wala moom mooy or bisu neuvième mom la doon expliquer depuis le début seigne Aliou Guèye xamna da nga yexa ñëw bu fekke ne xam nga ne bu fekke xam nga ne sa tabaski amul ben lien bo xamantene ni bu direct la lu dul lien bu indirect ak taxaway bi gaay yi taxaw arafa yow sa tabaski dafa am lien ak sa 10e jour wéru zul hijja comme ñi nga xamantene ne bi sallallahu alayhi wasallam 9 ans yi mu def Médine yépp di ray tabaski daf ko lënkale woon ak weeru zulxijja bi waaye lënkalewul koon ak taxawaayu arafa boobaa yow sa or bisu arafa moom mooy sa or jour zul neuvième zulxijja léegi nag neuvième zulxijja boobu bu tombeewee ak bis ba nit ñi taxaw bisu arafa fa biha wa ma bu tombeewul itam ak bis ba nit ñi taxaw bisu arafa yow bu la neexee mën ngaa boolante ñaari koor yépp du la yàqal dara en tout cas comme ni ko boroom xam-xam yi bëri waxee koor gu am yool la gu bëri yool la yonent bi nee na ku ko woor yàlla nangul la

dafa am borom xam-xam yi luñ ci wax bu fekkee kooru naafila la am na ñu wax ne amul problème da ngay continuer sa koor kese bu fekkee weeru kooru farata la nag lu mel ni weeru koor ci la ñeen ñu wax ne déedéet du baax il faut il faut nga fanaanu yéene bi ba pare mais ci yenn mazahib yi sax ci mazhabu abu xanifat la yaakaar na moom amulu ko problème moo xam muy kooru naafi la wala muy kooru farata moom boo yéenee même bu fekkee la lendemain ci nga yéene amul problème maadaama lekkoo ci suba si rek donc bu fekkee dangaa fàtte ne suba la bisu arafa wala xamoo ko woon nga tëdd te yéene woo koor fanaanoo woo ko maadaama kooru naafila la boo yeewoo xam ko balaa ngay lekk rek mën nga kaa mën nga kaa continuer noonu incha allah j'espère que leer na très leeral nga li ma bëggoon li ma waroon na wax sax ki nga xamante ne moom dafa nekk bisu arafa ci taxawaayu arafa kooku aslan koor waru ko ci base hadith bima ma wax sànq yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na kuy nek arafa nek al hajj ba pare di wor waye sayyidatuna aisha sax mom riwaya nañ ci mom ne nek na arafa nek nek aji aj ba pare wor waye loolu daf lay delo ci ne deg deg nu sahaba yi ci waxu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sallam nak bokku na ci li tax sax ñu taxawal plateforme bi pour leral yu mel non manam leg leg nga deg ben texte rek nga jàpp ne diine yeb ci texte bi la wara a tënku fekk texte boobu noonu ni ko saxaaba yi nga xamante ne ñoo jëlee ci yonent bi xadis bi ci boppam déggee sax bokkut ak yow ni nga ko déggee tey je vous donne toujours des benn exemple boo xamante ne bëri na lu ma koy wax xadisu buxaari la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne laa yusalliyanna ahadukum al asra illa fi bani qurayza kenn ci yéen bu mu julli tàkkusaan lu dul ci banu qurayza benn mbooloo la ko waxoon ci saxaaba yi bi ñuy dem ba ci yoon bi tàkkusaan jot ñenn ñi ñi ne ñoom dañuy julli par force parce que waxtu wi jot na

sa tabaski sa dixième jour lay doon même bu fekkee onzième jour keneen la wala huitième jour keneen C'est bon, vous faites ليت شعري هل أفوز بزورة لدار حبيب الله هل أعمل النصار ديار لمن قد باتا عرشا لعرشه ووافى بخمس لن ترى سرمدا نقصا آه، باي باي جاي كيغا خمانتيني دا فا جوغي توكي حديث بي نيو تي واخني دنج كو تري عدم التطرق ليلا موم لا داما كوي جوخي اكزامبل لو بري تي واني ني دول ني تري بو نيو رك ارامال لاي تكتالي am na benn téere boo xamante ne bu am ama am solo la xam naa incha allah dinañ ko jàngale ci plateforme bi incha allahu taala téere bi mu ngi tudd al anwa wa taqasim ñu gën koo xamee saxiixu ibnu xibbaan maanaam moom façon bi mu bindee téere bi mooy daf lay indil par exemple yonent bi tere na nàngam tere boobu noonu ban façon tere la tere tere xaraamal la wala tere waral la wala nangam indil la ay xadis ci bunt boobu noonu yonent bi digle na nangam digle boobu ban façon la indil la ay xadis ci façon bunt boobu ba nga xamante ne di nga comprendre di nga comprendre euh, kii bi euh, dëgg-dëgg maanaawu tere bi wala digle bi ci ñëw donc yonent bi bu ñu ne tere na jugee tukki dem sa kër directement guddi loolu da koy déggee ci ñaari anam première bi mooy. tere boobu duwul tere ak araamal parce que bu doon araamal la ku ko def am bàkkaar te kenn waxul loolu ci borom xam-xam yi tere wattandikuloo la léegi ñaareel bi mooy wattandikuloo bi lan mooy sabab bi mooy jamono jooju noonu téléphone amul woon internet amul woon courant amul woon mën ngaa dem bett sa waa kër fekk leen ci xaal boo xamante ne du leen neex te nit ki même bu fekkee sa soxna wala sa sa soxna la wala sa borom kër wala sa doom bëgguñu ci intimité nga di ko bett n'importe comment et n'importe n'importe où donc pour respecter intimité kenn ku nekk moo taxoon ñu wattandikuloo loolu léegi nag bi nga demee ba xam ne téléphone am na mën ngaa woote mën ngaa envoyer message ne maa ngi ñëw waxtu sàngam bis sàngam laay egg si nangam ak nangam yëglu ba nga xamante ne nit ki dina dina dina mettre à l'aise boo ñëwee loolu amul benn problème amul benn problème donc nga def ko dem sa kër xaaju guddi wala 3 heures du matin du am benn problème incha allahu taala euh, imam Assane Thiam plateforme bi lien baa ngi nii ma épinglé ci premier commentaire bi mën nga cee dugg nga remplir formulaire bi te bu dee remplir nga nga fay directement bul xaar ba ñu bañ la koy fàttali ngir yàlla parce que le 15 juillet dañuy arrêté dañuy arrêté inscription yi autrement autrement est-ce que am na ay réew yuy tabaski jour le jour de Arafat ndax am na ay réew yu tabaski jour arafa non mais réew yëpp réew yëpp ñaar kese lañ suwaat ñu njëkk gis weer mooy ñi nga xamante ne ñoom samedi lañu war a tabaski ni ki suba soit ñi nga xamante ne jour normal bi lañ gis weer mooy ñi nga xamante ne dimanche la ñuy tabaski maa xukmu xalqi lixyati wat sikkim lan mooy lan mooy àtteem amna ay borom xam-xam yu wax ne dañ ko araamal waaye ñooñu moy borom xam-xam yi nga xamantene ne dañoo jàpp ne digle bi ñëw ci saxal si kim diglee farataal la donc wat ko dafa aram ba da ngay dégg sax lég lég ñu lay wax ci ñom ne ku wat si kimam faasiq la daganul imam ngay roy ci ginnaaw imam buy wat si kimam waaye borom xam-xam yi nga xamantene ñom ñoom dañoo modéré te dañuy dégg texte yonent bi selon mafahimu shariaati ak maqasidami dañ ne la bu fekkee góor nga buñu sip kese la waaye nag boo ko defee ngir dalil wala ngir sabab wala sax mu neex la rek nga def ko te nga wàññi ko amul benn problème amul benn problème <clears throat> en tout cas il faut nga xam d'abord lan mooy jubluwaayu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci diglee saxal sikkim ndax dafa jublu ci diglee saxal sikkim pare boo saxalee sikkim da ngay am yool wala day tax nga nga gën ko saxalu sikkim déedéet lim ci jublu mooy jamono jooju identité la woon ci jullit bi identité la woon par rapport ak juif yi nga xamante ñi ngi dëkkoon Médine ñaareel bi itam sikkim bu fekkee góor nga bu yàlla may karaw daf lay différencier ak jigéen ci yenn anam yi waaye am na góor yoo xamante ne génétiquement ni leen yàlla bindee duñu ñu am karaw donc mën nañu am 60 ans dañu am sikkim donc attey sharia ci yool ak ci ñàkk yool ci dagan ak ci xaram duy aju yu mel noonu <coughs> plateforme bi comment faire sëñ Nouroula lien baa ngi noonu ma épinglé ci premier commentaire bi baal ma rek nga bës lien bi incha allah nga remplir formulaire bi te nga fay. maa ngi mën mën nañu arrêté ah, mën nañu arrêté on a fait déjà une heure dix minutes ñu tàggatoo ñaan yàlla mu may ñu ñi tabaski ak jàmm ñi tabaski suba yàlla na leen yàlla nangul ñi tabaski gannaaw suba yàlla na ñu yàlla nangul ñi am xar yàlla na leen yàlla may tabaski ak jàmm ñi amagul xar siise siise yàlla na leen ko yàlla yombalal ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla may ñu gëm yàlla gu mat yàlla may ñu xolu xaru tabaski bi buñ ko amee ñu def ci di bañ koo denc pour suñu bopp waaye génne ci sarax ak miskin yi nga xamante ne amuñu ko sëñ Imam Assane Thiam plateforme bi wax naa ci waxati ci waxati ci waxati ci waxati ci bu live bi jeexee baal ma nga delluwaat ci commencement wu live bi da koy arrière nga commencé waat ko rek liñ ci dégluwaat incha allah ñu ngi ñaar yàlla yàlla na yàlla defal ñu tawfiix sàmm ñu musal ñu muccal ñu boole ñu ci. ñi nga xamantene ni dañ ko fekkee jamm ci barke yunus Sallallahu Alaihi Wasallam yalla na yalla def ñu nek ay ndimbal ñeel l'islam def l'islam mu nek ndimbal ñeel ñu ci barke bàyyi ñu sallallahu alaihi barke bepp jamm am ngir mande yalla yalla na yalla musal ñu ci musiba ak bala ak tas yaakaar degu ñaaw ak xawi sutura ma ngi leen di bu baax di leen balu ak xamna bala ñuy dajé waat dana fekk tabaski bi wessu wa insha allah première semaine samedi prochain rek danañu danañu continuer fiñ tek suñu insha taala taala alaykum wa rahmatullah Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla